yaa maalikal mulki yaa man jàll al xawaadir irham jamii al waraa yaa haadiyal radaa mi ngi tàmbalee suñu nuyoo ci suñu kilifa yi fi nekk nee na mi ngi tàmbalee ci suñu am nuyoom suñu kilifa yi nga xamante ne ñoo fi nekk buñ ci tuddee sëriñ xaadim nee na ca buñ ci sëriñ xaadim mu yóbbaale mboolem kilifa yi fi nekk yëpp nee na mu yóbbaale mboolem kilifa yi fi nekk yépp kon ñoo ngi nuyu mbooloom njabootu borom daaru yi fi teew yëpp. kon nee na mi ngi nuyu mbooleem njabootu borom daaru yi fi teew yëpp. di ko teg ci loxol sëñ Xaadim. nee na di ko teg ci loxol sëñ Xaadim. di nuyu itam mboolem taalibe yi fi teew. nee na di nuyu. taalibe yi fi yëpp. nee na di nuyu mboolem taalibe yi fi teew yëpp. ginnaaw loolu. nee na ginnaaw loolu. jataay bi. nee na jataay bi. jataayub lislaam nee na jataayub lislaam la. ndax fàttaliku. nee na ndax fàttaliku. suñu borom moo ñu ko digal. nee na suñu borom moo ñu ko digal. te jotaay bi jotaay fàttaliku la. nee na ca jotaay bi jotaay fàttaliku la. fàttaliku ay jàmbaar yoo xam ne. nee na fàttaliku ay jàmbaar yoo xam ne lislaam rek a leen ñoroon. nee na lislaam dong nga leen ñoroon. jaamu yàlla. nee na jaamu yàlla. liggéey. nee na liggéey. teg seen tànk siraatul mustaqim. nee na teg seen tànk siraatul mustaqim. kon ñooñu la ñuy fàttaliku tey. nee na kon ñooñu la ñuy fàttaliku tey. ginnaaw loolu ma leer na itam kàddu yi ma na ginnaaw loolu itam ma leeral li kàddu yi ma yëkkati maa ngi koy yëkkati ci maa ngi koy yëkkati ci bi nga xam ne moo lëkkate mboolem sëti sëñ Modou Awa Balla nee na nga xamante ni moo lëkkale mboolem sëti sëñ Modou Awa Balla yi ak sëtaat yi ak sëtaat yi waaw kon ci seen kàddu laay waxe nee na kon ci seen kàddu laay waxe kàddu yi itam nekk kàddu yi sant rek nee na kàddu yi nag nekk kàddu yi sant rek waaw ak kàddu yi ngërëm nee na ak kàddu yi ngërëm di xam leen nag suñu ñaari kilifa yi ñuy fàttaliku tey. nee na di xam ne suñu ñaari kilifa yi ñuy fàttaliku tey. muy sëñ Modaw Balla. nee na muy sëñ Modaw Balla. ak sëñ Abdou Khoudous. ak sëñ Abdou Khoudous. fàttaliku leen dafa war. nee na fàttaliku leen dafa war. Euh, ndax ku am jàmbaar yu mel noonu. nee ndax ku am jàmbaar yu mel noonu. da nga leen a war a fàttaliku. nee na leen a war a fàttaliku. ndax ñi koy dégg mën a roy ci ñoom. nee na ndax ñi koy dégg mën a roy ci ñoom. te mën nañoo fa tàmbali fàttaliku ci ñoom. nee na mën nañoo tàmbali ak fàttaliku ci ñoom. ci seen jikko yu rafet. nee na ci seen jikko yu rafet. loolu ñu doon waxtaan léegi wax nañ ko. nee na kon loolu ñu doon waxtaan léegi wax nañ ko. jikko rafet nee na jikko yu dafa am solo lool nee na dafa am solo lool ndax bokk na ci li tax sallallahu nee na ndax bokk na ci li tax sallallahu alayhi wa sallam wàcc ngir eh, ngir jubbante nit ñi defaraat seen jikko nee na ngir jubbante nit ñi ngir ñu defaraat seen jikko te loolu rek la fi suñ ñaari jàmbaar yi nekkee woon nee na ca loolu la sëriñ Modou Awa Balla ak sëriñ Abdou Khoudoss nekkee woon kon loolu war nañ ko fàttali ndax ñuy roy nee na kon loolu tax ñu leen di fàttaliku ndax ñu mën a roy ci ñoom waaw ñuy fàttaliku tamit nee na ñuy fàttaliku itam seen ñaari jëmm yi bennoo lañ nee na seen ñaari jëmm yëpp bennoo ga nga xamante ni benn woon nañ ko. ak toppante gañ toppante woon. nee na ak toppante gañu toppante woon. ak wóolante gañu wóolante woon. nee na ak wóolante gañu wóolante woon. ak dimbalante gañ daan dimbalante. nee na ak dimbalante gañ daan dimbalante doomu aadama yi ci lu baax. ak ak di rafetal. nee na ak di rafetal. ak di dundalu mbokk. nee na ak di dundalu mbokk. ndax bis bi biñ ko taxawalee. nee na ndax bis bi biñ ko taxawalee. dañ koy barkeelu ci seen dundalu mbokk googee. nee na dañ cee barkeelu ci seen ñubu bopp googee. waaw ndax ñoom dañ daan dundalu mbokk bu baax. nee na ndax ñoom dañ daan dundalu mbokk bu baax. di ko jokk bu baax. nee na di ko jokk bu baax bis bi bu ñu ko taxawalee. nee na kon bis bi bu ñu ko taxawalee. sëti sëriñ Modou Awa Balla taxawal ko. nee na sëti sëriñ Modou Awa taxawu ko. Eh, tudde ko sëriñ Abdou Khoudous. nee na tudde ko sëriñ Abdou Khoudous. jokk rek lañ ci jublu. nee na jokk bokk dong lañ ci jublu. waaw barkeeloo ko seen jokk bokk. nee na barkeeloo ko ci seen jokk bokk ga nga ni moom lañ daan dund. kon jokk bokk ku ne xam ne tax lu ne ma amee solo. nee na ndax jokk bokk kenn ku ne xam na ni mu solo. ndax jëlee nañ ci soxna Aïcha. nee na jëlee nañ ci soxna Aïcha. radiyallahu anha. radiyallahu anha. mu jëlee ci sallallahu alayhi wa nee na mu jëlee ci sallallahu alayhi wa sallam. mu wax ne. nee na mu wax ni. ak bokk dafa wax ne. nee na ak bokk dafa wax ni. képp ku ma jokk. nee na képp ku ma jokk. suñu borom jokk la. nee suñu borom jokk la. waaye képp ku ma dog. waaye képp ku ma dog. suñu borom dana la dog. nee na sunu borom dana la dog kon jokk bokk lu am solo nee na kon jokk bokk lu am solo la ñu fàttaliku tamit suñu jàmbaar yi nee na ñu fàttaliku it suñu jàmbaar yi ci seenug euh, tabe nee na ci seenu tabe ak dundle seen alal nee na ak dunde seen alal ci yoonu yàlla nee na ci yoonu yàlla dañ xam ne loolu tam lu am solo la nee ca xam ne loolu moom lu am solo la Moda Balla bu ñu ne ku tabe la woon nee na sëriñ Moda Balla bu ñu ne ku tabe la woon kenn du li ko yàlla joxoon ci wërsëg lépp nee li ko yàlla joxoon ci wërsëg dundal na waaye bu ñu nee na waaye bu ñu tabe na doy na ci bu ne may na téeméeri fas nee na na ci bu ne may na téeméeri fas loolu ak tabe la wax dëgg yàlla nee loolu ak tabe la wax dëgg yàlla waaw ak tab tamit nee ak tab nag it lu am solo la mooy tam nee na lu am solo la mooy moom it ci dund doomu aadama. ndax Seydina Ousmane. nee na ndax Seydina Ousmane. bàkkam bu boobu nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax nee na nga xam ne sallallahu alayhi moo ko wax wax nga xam ne bu ëllëgee moo ko may loolu nee moo ko may loolee kon dundale alal ci yoonu yàlla nee na la suñu ñaar jàmbaar yi foofu lañ nekk sunu ñaari jàmbaar yi foofu lañ newoon. waaw ñoom ñaar ñu nekkoon ci ñu ragal yàlla. nee na ñoom ñaar ñu nekkoon ci jikku ragal yàlla. ñu nekk ñu ñu ñu jàmbaare. nee na ñu nekk ñu jàmbaare. nag ñu nekk ñu nangoo liggéey. nee na ñu nekk ñu nangoo liggéey. kon nag yooyu war nañ koy roy ci ñoom nee na kon loolu war nañ koo roy ci ñoom fàttali yi tamit loolu rek lañ ci jublu nee na fàttali ko itam loolu dong lañ ci jublu ngir ñu roy ci ñoom nee na ngir ñu roy ci ñoom waaw kon nag ñu ngi ñaan suñu borom mu dégg mu defal ñu dégg ak topp nee na kon ñaan suñu borom ñu defal ñu dégg ak topp ba loolu ñu war roy ci ñoom lépp nee na ba loolee ñu war a def ci ñoom lépp. ñu ñu ñu góorgóorlu ci roy leen ci loolu. nee na ñu góorgóorlu ci roy leen ci loolu. waaw ñu fàttali itam ne waa daayira bi tam ñi ngi sant njabootu Serigne Abdou Khoudous. nee na waa daayira bi itam ñu ngi sant njabootu Serigne Abdou Khoudous gi. ndax ñoom itam eh, eh, kenn ku ne xam na ne. nee na ndax ñoom it kenn ku ne xam na ni. teew bi ñu teew ci bis bi. nee na teew bi ñu teew ci bis bi. yaakaar naa ne bëriwul luñ koy gis. nee na yaakaar naa ne bëriwul luñ koy gis. waaw ndax. bis bi xam nañ ne. nee na ndax xam ni bis bi xam nañ ni. Euh, bis bi bu ñu ko tuddee sëñ Abdou Khoudoss. nee na xam na ni bis bi bu ñu ko tuddee sëñ Abdou Khoudoss. moo ko waral. nee na dundalu bokk dong moo ko waral. nee na ñu ànd ci ak mbégte. ba ni ci bis bi. nee na ba tax na ni ñu ñëwee ci bis bi. jàpp naa ne ko ñëwee ci benn nee na jàpp nañ ni mosuñu ko ñëwee ci benn bis. kon nag ñoo ngi leen di sant ñoo ngi leen di sant bu baax a baax. waa daayira ñu ngi leen di sant bu baax. nee na waa daayira bi ñu loxol sëñ jiili. na di teg loo cant gi ci lii. mu jottali ko sëñ Basiiru. nee na mu jottali ko sëñ Basiiru. mu jottali ko sëñ Modou. nee na mu jottali ko sëñ Modou. ndax keroog bi ñuy def appel bi. nee na ndax keroog bi ñuy def appel bi. sëñ Basiiru dafa wax ne. nee na sëriñ Basiiru dafa wax ni. sëñ Modou de mi ngi waajal bis bi. nee na sëriñ Modou de mi ngi waajal bis bi. noo xam ne mosu ko waajale benn bis. noo xam ni mosu ko waajale benn bis. waaye loolu ku fi ñëw tey. nee na waaye loolu. ku fi ñëw tey. nee na ku fi ñëw tey. da nga xam ne loolu moo waxoon. nee na da nga xam ne loolee sëriñ Basiiru Abdou Khoudoss waxoon dëgg la. waaw taxaw na ci bis bi bu baax. nee na sëñ Modou taxaw na ci bis bu baax a baax a baax. nee na la ko ci waroon lépp def na ko. njaboot gi yëpp tam ñëw nañu. nee na njaboot gi yëpp ñoom ñëpp ñëw nañu. waaw kon nag ñu leen sant bu baax. nee na kon ñu ngi leen sant bu baax. waa daayira bi tamit. nee na waa daayira bi itam. may xamal sëñ xaadim ne ko. nee na may xamal sëñ xaadim ni ko. bi bis bi jegesee nee na bi bis bi jegesee li ëpp ci ñoom nee na li ci ñoom kenn ku ne jàng naab kaamil nee na kenn ku ne jàng naab kaamil ñaanal Cheikh Moudama Balla nee na ñaanal Cheikh Moudama Balla ñaanal Cheikh Abdou Khoudous nee na ñaanal Cheikh Abdou Khoudous ñaanal ci njaboot gi ñu fàttaliku nee na ñaanal ci njaboot gi ñu fàttaliku ko te loolu lu am solo la nee na tey loolu lu am solo kon nag ñu ngi leen ñu ngi leen seere loolu nee na kon sëñ Xaadim ñu ngi leen di seere loolu tey ñaan ngeen ngeen ñaanal ñu ci nee na tey ñaan ngeen ñaanal ñu ci ba taxawaay boobu nee ba taxawaay boobu at mu jot gën nee na at mu jot mu gën a yokk nee na ci barkeb Seexul Xadim nee na ginnaaw loolu itam nag nee na ñi ngi sant bu baax def sëñ Modou Habib yi. nee waa daayira kër sëñ Modou Habib yi. ñu ngi leen di sant bu baax nee ñu ngi leen di sant bu baax. waaw di sant mboolem sant mboolem njabootu borom daaru gi fi nekk. yi itam yëpp. nee sant ñëpp ñëw nañu. nee na ñoom ñëpp ñëw nañu. ñoo loolu itam ñu sant bu baax baax Touba Vision. nee na kon loolu itam ñu ngi sant bu baax Touba Vision. ak Darou Mouhty FM. ak Darou Mouhty FM. nga xam ne ñoom bañ tàmbalee bis ba léegi. nee ñu nga xam ne ñooñu bañ tàmbalee bis bi ba léegi. ñoom ñoom ñoo ko ànd. nee na ñoom ñoom ñoo ko ànd. kon di sant <coughs> kon ñoom nee na ñu ngi leen di sant bu baax a baax. waaw di sant mboolem mi fi teew mépp rek. nee di sant mboolem mi fi teew yëpp. Euh, di di di. di sant itam mboolem site internet yi nga xam ne ñu ngi jàllale waxtaan wi. nee na di sant mboolem site internet yi nga xamante ni ñoo ngi jàllale waxtaan wi. waaw ba am na ñu bari ñoo xam ne. nee na am na ñu bari ñoo xam ni. ñu ngi teewlu waxtaan wi. nee ñu ngi teewlu waxtaan wi. te ci ñoom ci ñoom lañ ko lañ ko gisee. nee na ba ci ñoom lañ ko gisee. kon ñoo ngi nee na kon ñoom ñu ngi leen sant bu baax ci loolu. di jégalu na di jégalu nag kàddu yi. waa daayira bëggoon nañ waa daayira bëggoon nañ xëy na mu gën a rafet. nee na waa daayira bi xëy na bëggoon na mu gën a rafet te rafet na. waaye lu ci dëng rek ci man la. nee na waaye lu ci dëng rek fa tubaarakallaahu yéeneem la. waaw lu ci jub tamit suñu borom la. nee na lu ci jubit suñu borom la. kon ñu bàyyi mu eggale léegi. nee kon ñu bàyyi sëriñ xaadim docteur su ko defee moom mooy ñaanal taalibe yi. yaa